waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen di jaar di leen di jaajëfal ñi ngi fii uh, ci uh, yoonu Saint-Louis bi boo génnee sàkkar rek uh, ci dëkk bu ñu naan ndànd Diop. Mhm. ndànd Diop fa la choc bu metti bi amee ñi ci ñàkk seen bakkan nag bari na torop du ñu def rek lu dul jël kenn. koo xamante ni mbir mi moom fekkee na ko bokkoon na ci ñi nga xamante ni ci ñi doon dimbali blessé yi mën nga ñu wax affaire bi nu mu demee. waaw affaire bi moom yéeme na trop yéeme na trop waaw vraiment métti na trop trop ñun ci fajar si si leen yem gaare parce que bi ñu ñëwee ñun ñoo doon jàppale gendarme yi pour ñu génne koor yi ci oto bi kaar bi waaw li si dee moom yéeme na trop. yéeme na trop euh, waaw dañu naan lim bi 19 ñi waxaguñu yow lim bi. non kenn mënu laa wax ñaata la li dee moom bari na trop am na ñoo xam ne kaar bi daf leen yéeg ñu ngi ci kaar bi ñu ngi leen di dindi dindi nii. ëpp na 19. ëpp na 19 ëpp na 19 vraiment vraiment ëpp na 19 parce que man sama oto euh, yére yi si nekkoon sëri ci nekkoon client yi ma yeboon yëpp dafa leen jox sëri ñoo doon sàng koor noonu fu ñu tëdd noonu. vraiment métti na trop mais yàlla na fi yem daal vraiment. waaw choc bi nu mu demee ndax dañ ñi benn camion la euh, li ma gis fee ak benn kaar neenoon benn mbaam lañ doon moytu. waaw benn kaar bi jógee horaire wu ñiij la moom moo doon moytu mbaam bi. Mhm. xam nga fekk camion ci voie am. Mhm. léegi ñoom ñaar ñu def face à mhm. waaw fu ñu defee face à nag ñu mbëkkantee kaar bi daanu y' a plusieurs vraiment oto bi li ci dee yéeme na. mais daal yàlla na ko yàlla yemale fii. vraiment métti na metti na métti na yàlla na ko yàlla yemale fii nan delloo suñu xol yi ci yàlla. ñu seetaan ni vraiment lii choc chauffeur kenn du tey di def choc. waaw mais lii metti na trop trop trop trop trop trop mais yàlla na ko fi yàlla yamale. jamono gii ñuy wax ak yow. Mhm. Euh, fi mu nekk nii. kaar bi ne. Mhm. am na ñi nga xam ni dañoo ñàkk seen bakkan mais ñi ngi ci suufu kaar bi ba léegi génn guñu parce que kaar bi bi mu dalee ak camion bi camion bi dafa chargé woon bi mu dalee ak kaar bi euh, place su siège yi fi siège yi tegu dafa toj am ñu suuf ci biir mhm. ñoom la sapeur ne di yëkkati. ñoom la sàpp di yëkkati oto pour pour pour jël koor yi nekk suuf mais yéeme na daal moom daal yàlla na ko fi yàlla yemale yàlla mi man lii def lii yàlla na ko fi yàlla yemale ñi gaañu yàlla na yàlla xare àjjana seen i mbokk yàlla na leen yàlla may xolu muñ vraiment métti na métti na métti na. am na benn waa ju ma jëloon sànq mi déploré benn affaire ñi. Hmm. bi choc bi amee am na ñi nga xam ni dañoo njëkk ci euh, choc bi dañu jël seen portable di filmer au lieu que ñu dimbali blessé yi. non du mën a ñàkk ku nekk ak sa xel xam nga am na ñoo xam ni dañuy filmer di bëgg lu nu wax. mais lii boo ci yamee sa xel sax du nekk ci sa portable yow yow mi yow. waaw yow mi yow mi nekk euh, nit nit nii sa xel du ne parce que lii boo ci sa xel sax du nekk ci portable. dimbali blessé yi ak ñi ñi ñi nekkoon ci oto bi moom moom moom moom moo war a nekk première priorité mais nag metti na torop trop trop trop trop mais yal na ko yàlla saafara. yal na nu yàlla aar ñun ñi tali bi. ñi gaañu yal na leen yàlla xare àjjana ñi blessé yal na nu génn hôpital yal na nu wér ak jàmm ba dellu seen njaboot mais tali bi metti na metti na metti na. yal na ko yàlla saafara yàlla. teg ci ñun loxo daal fi ne daal ñun fi mu ne dañuy bàyyi suñu bopp yàlla rek vraiment nan bàyyi suñu bopp ak yàlla vraiment yàlla mi man mi def lii yàlla na ko fi yemale xam nga mu bañatee am euh, chauffeur yi yàlla na ni yàlla aar yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo waaw ñu dem yóbbu ki yi jàmm accident ba jàmm mënul ñàkk nag vraiment mënul ñàkk mais nag yàlla na ko fi yàlla yemale voilà mu ngi noonu ci yoonu Saint-Louis bi la boo génnee sàkkal am dëkk booy jot ñu naan ko mbandu jóob fi la accident bi xewee moom mii bokk na ci ñi nga xamante ni ñi njëkk a teewee euh, ci ci ci ci accident bi ba ñi euh, ci otoom am na ay séer yu mu yoroon mm-hmm. ñoo xam ne pour dimbali ñi nga xam ne blessé même ñi nga xamante ni dañ cee ñàkk seen bakkan mu nekk accident bu metti ñi ngi naan lim bi 19 mais moom nee na ëpp na 19 mm-hmm. kon donc nekk na loo xam ni metti na accident benn bakkan nga ñàkk ko rek dafa metti kon rawatina lim bi mu wax euh, jamono gi nag ñi wax euh, kenn mënugu leen wax exact nombre bi ñaataa ci ñàkk seen bakkan du ñu def lu dul euh, incha allah rabbi dañu ñëw waxaat leen lan moo fi xew yal na yàlla defal ñëpp jàmm maire bu Ngën Saar monsieur le maire ko am six heures moins fekk na ma ci jàkka ji bi ma déggee sirene sapeur pompier yi ndaa xam ne accident am na ci laa taal sama oto ñëw fekk ñuy tiire cadavre ci oto bi sax ah, ah, na waaw boobu ndaka ndaka nga fekk melekaanu oto bi rek ñu ñëw bi ma gisee accident bi xamagu woon sax nombre bi waaye xam naa ni ñu bari dee nañ ci parce que ni oto minicar bi tëdd rek mhm. laa xam ni ñu bëri dee nañ ci mhm. ñuy tiire un à un Euh, ñi nga xam ni bëgg nañ leen a sauver ñoom ñu dugal leen aussitôt ci ambulance yi évacuer leen hôpital ñeneen ñi ci des nag ñi nga xam ne si ñàkk nañ seen bakkan vraiment ñi ngi leen di génne di leen tëral benn ak loolu moom ci lañ fekk. kon ñu bari ci sur place ci la ñàkk seen bakkan. ñu bari 19 yi yëpp sur place sur le coup la ñu dee ñi évacuer aussi man bi ma accès gis naa ci deux yu ñuy tiré di leen yóbbu hôpital vraiment ci état bi ñu tollooti xam naa ne sonn lool. parce que déjà fracture yi bari na euh, lu si bari sax xam naa ni yaakaaruma daal ñu mucc ci. waaw kon daal ñoom dañ leen a tëwloon ci ñu leen waaw bi ñu leen boobu sapeur pompier ñaar ñett ñoo fi nekk mais ak par la suite nag vraiment li fi ñëw ci ay sapeur pompier ak ambulance yëpp vraiment mobiliser nañ leen ñëw nañ bi ñu toogee tuuti aussi la l'autorité administrative euh, gouverneur préfet de Louga sous-préfet de l'arrondissement de Sakal ñoom ñëpp après dañu doon ñu doog a ñëw. est-ce que blessé yi ñu ñu yoon doon nañu ñaan euh, a tiire mooy chauffeur bi bi parce que mënuñu ko woon a tiire parce que dafa coincé waaw. ñoo ñu wax ne car bi mooy horaire u Ngig. horaire u la dafay jóge Ngig chaque jour di dem Dakar bon xam naa bii yoon nag euh, dafa amoon benn ngénte bu amoon foofu ñu si bare ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci accident bi ci ngénte boobu lañ jóge jëloon horaire bi pour dem pour dem Dakar interrogé ci benn paa mi moom wax dëgg yàlla sama ñetti. mooy direct parce que li nga wax nii dafa am solo nit ñu ngi lay suivre direct yow mi nga xamante ni yow yow yaa fekke choc bi. gars yi ñu ngi lay suivre rek. noo non fekkuma soog bi sax mooy man dama jógee ci dëkk bi oto bi jógee ci laa jóge di voyage dem Dakar bi ñëwee ñeem soog bi bi ñeemee soog bi noonu ndax dégg naa sax oto bi mag bi 508 bi oto lii la doon moytu mbaam mais li may lancé appel pour sénégalais yi guñ ko bàyyi xel man soog bi mën naa ne ci laa ñi fi njëkk yem ci laa yem sama téléphone boo ko sama téléphone amul benn photo nañ invité di photo soog yi. ok bi amee dafa am ñoo xam ne sans ñu dimbali gars yi di photo. waaw man loolu ma mujj énervé moo wàccaat dem sama oto moo toog fa. ndax da ngay dégg ay xale ñu yuuxu. ñuy sëb man am na xale ba nga xam ni dama dama yëkkati ay verre yëkkati xale bi seppi ko jox ko nijaayam. ay jigéen am na femme ba nga xam ni. bi ma koy yëkkati. bi ma koy yëkkati amul ñu taxaw foofu amul ku ñeme jàpp. man naa ko diri te nu ma ko bëgg te ko ci kaw tali am benn femme xam tànk bi dafa dem maa leen génne. loolu bi daf ma énervé moo tax ma dem taxaw yu nële. mais loolu dafa ëpp. nañ nañ nañ éviter kon daal li ci ñàkk seen bakkan bari na. non bari na ndax ñu ngi naan ñaan da mat nañu vingt wala matuñu vingt mais daal li may lancer appel man li ma bëgg mooy doomu aadama yi nañ bàyyi di filmer. ndax tey avant sapeur di ñëw. Mhm. parce que def nañ lu mat ay quinze mille vingt mille sapeur ñëwul bu ñi fi nekkoon buñ dimbali woon jaam yàlla yi kon xëy na ñi ndax nit ñi dañoo warante sauver dina am mais man daal sama xol neexul xam naa daal war nañ dimbali nit ñi ci yenn actes yi. waaw ah, bàyyi film yi bàyyi téléphone yeeg film yi amul njëriñ. voilà mi ngi noonu ngeen gis ni choc bi li ñu wax kii am na ko kii ñu doon laaj léegi bokk na ci ñi nga xamante ni ci ñi njëkk a yem ci choc bi la yow danga ko fekkee. waaw fekkee naa ko waaw yow mu demee ay cinq heures yooyu ci la am quoi. léegi mais am na benn paa boo xam ne même chauffeur ba sax apprenti chauffeur apprenti bi géddagul ne quoi. Mhm. te itam xam naa bu ñu yëkkatiwaatee nii am na ñeneen ñu war a nekkaat ci suuf féetee benn côté euh, CSA bi da doon moytu benn mbaam ci la dal ci sa euh, ci camion bi waaw mais mais ñi ci gaañ moom jigéen ñi moom. camion la euh, léegi mais. kii bi moom am na ku jigéen ci kii kooku rek laa ci xool ci jigéen koo xam ne kii da moo ku jigéen ku xees ku am doom bu ndaw bi kooku moom jël na doomam ba di ko kii ba di ko nàmpal chauffeur bi itam maanaam gaañu yaakaar naa gaañuwut nàccul ko quoi bu dee day damm day damm rek moom moom génn na bay wax waaw mais ñi ci ñàkk seen bakkan. bari na ba ñi ñàkk seen bakkan ñoo ëpp. yow lim bi buñ ko xayma. man daal quinze yu ëpp na quinze 15 moom 15 moom ëpp na ko ci li ma gis ëpp na quinze waaw ëpp na 15 moom. voilà mi ngi noonu gis ngeen ambulance yi ñu ngi noonu di yóbbu ñu ngi noonu di yóbbu ambulance yi gars yi ngi noonu di yóbbu euh, oto yi euh, bële moo choqué.